directeur du budget aussi parce que président de la république lañ bind mu entretien un protocole d'accord protocole bobu ban ko ba ah, satisfaction non seulement euh, engagement yi nga protocole bi respecté wuñu ndax deux dañ chaque mois ci 2021 dañu ñu ci jox dara buñ démé ba mois de juin dañu fexé ba nga xam liñ leen yoré non lepp lépp nu soldé ko comme ça ñuy liggé ci 2022 nga xam ne ñu nu yoreel dara mais malheureusement lolu amul parce que borop 2021 ba légui amna ci 2 mois yo xam soté nañ ko joxuñu nu ko ba fi may waxé yow facture bi ñu nu mujjee fay ba légui 3 quarts ci nun jotuñu sen sen sen sen xaliss depuis le 4 amna nañ virement yi ci am ko def depuis le 4 mais ba nous noo ni nii rentrer rentrer suñuy fonds té li ci gëna metti encore daggat daggat biñ ñukoy def ndax ay pourcentage lañ ñuy fay au lieu que ñuy fay par facture au moins nu mëna xam exactement li nga xamné ne lañ ñu yoreel ay pourcentage lañ ñuy fay ay 20 pour 18 finalement da ngay dem ba sa comptabilité su fekkone né dañ la doon fay par facture nga xamné dañ leen par exemple facture août 2021 lañ la fay danañu xam mais fi mu nekk aveuglement rek la ci grave ñun du consulter bu fay dañuy par SMS nous ñuy que nangam mais duñ xam sax la ñuy pourcentage la facture mais c'est facture parce que am lay fay dina sa facture amul kon vraiment nous metti aussi. Euh, nous nga wax collègues, ko demander président de l'audience ko lettre informer. ñaari yoon sax boole nu ay technicien mais ñu ngi koy lancé waat un appel monsieur le président le maître euh, kii monsieur euh, Macky Sall ay conse ay ay sénégalais lañu ay entreprise sénégalais lañu kenn joxunu lu nu moom ñoo ko liggéey muy sunu alal état lu nu dara kenn lebalu nu dara ñu ñëw nag di participer ci développement réew mi ci sunu man-man ak li nga xam mooy sunu métier. kon nag président sa njaboot a ngi sonn nanu li nu bëgg nag am na loo xam pour nga xam ko. président da ngaa war a recevoir les concessionnaires il est temps nga recevoir leen parce que am na ci loo xam pour nga xam ko dëgg-dëgg faaw nga recevoir ñu wax ak ñu ñu expliquer lan mooy parce que nit mën la am expérience vingt cinq ans trente ans exp kii expérience ci mbalit xamu ca dara. beneen bi ci gën a metti encore heure boo xamee ne mars def na virement ba mu dem euh, trésor trésor au lieu mu fayandoonu parce que nun ñëpp daanaka noo bokk euh, ay ay fournisseurs. ñi ni jox pétrole di gasoil bi ñuy doxé ñi ni joxi pneu ak ñi ni jox pièce de rechange mais malheureusement tel n'est pas le cas dañuy dem ba di ñu indil ay problème fournisseurs parce que par exemple bu vous ne dañ tay euh jallo écosystème jot na un virement Vous ma bokk un fournisseur de carburant bu jallo démé fay rek koku daan né voilà euh, STC dafa que bëgg a sama parce que mi ngi ni mi di liggéey fay nañ ko te man fayuñu ñu vraiment muy lu metti ci ñun depuis le 4 lañ au niveau de du trésor mais ba trésor nga bloqué ba muy ay yu dul jeex ci ñun. bor bi concessionnaire am bor musul toll bor bi ñu am nii am bor boo xam ne parce que par le passé nous avons dañ 5 6 milliards Nous avons mais tey jii nii xëy na sax avancé ci montant bi mais c'est sûr que dina dépasser les 10 milliards c'est une évidence Si nous ñun xëy entreprise qui continue de continuer c'est parce que y na ñeneen gens qui sont derrière di c'est-à-dire ñi nga xamante fournisseurs mais nous, ñooñu dañuy bëgg a parce que di liguey bob ba legui parce que bu nane 2022 actuellement ñi ngi fin août té pratiquement buñu xolé facture 2022 yi bu féké am na ñu ci fay yu néew lay wara doon donc bob ba tay ci boru 2021 yi lañ nekkoon alors que le budget a été épuisé LFR bi ñu amoon bi aussi à ce que nous savons moy aussi LFR bi jeex na